yàlla daf maa teel may ci noob amul ku ma ci tolloon noob <laughs> fexe ba ni tàggatu <laughs> amul ku ma ci tolloon waaye cu naa maye noobu jooni jooni <laughs> noob def léegi gis léegi léegi léegi trois jours noobu trois jours soo ko defee léegi du man ñetti fan sa xol sedd ci cuur waxuma la noobu ginnaaw suba de waxuma la nobu juroom ñaari fan de waxuma la nobu wer de nobu joni joni man da ngeen no pare to xaar mu ñew wala après da ngay fekk mo lay wo dina yow la nga do dox démb lo xala bu jigen bi nga nopp mo la wara wo bu la wooy jotu la day pass ñew ku no ba pare di wote wat way nobo no woo lay wut si te bu la neexee bu ñewé nga bañ aji way jigen wo do fi nit ni ko dañ bàyyante te boo ko jikko loolu yéen jaaxaru leen du ma tudd tur nag sëy nañu ba yàlla may na leen ay njaboot léegi te woon na ko fi di ko dañ bàyyante yàggul dara moo tax nekk ak sëriñ baax na xam naa bi ñu may dégg dama bàyyi xel dama ma ko. ñoom nag guddi lañ koy def. non. cuun ku la jox noob. Mhm. ni la sangoo ko bëccëg. Mhm. ndox ba dese naa jàpp. cuun xanaa xamoo ki gën a neex jàpp bi jamono bi koy jàpp day fekk bi nga nelaw. kuy nalo ci lo bëgg def ko ci da nga nekk sa mbokk sax muy nelaw ngukay kaat bu yow naa ko mo do nga ko ngay photo di ko film di ko film ku nalo lo ko bëgg def ko werna ci fa tabarakallah nopp bi ma wax da ngay jang fatiha ben yoon astaghfirullah mille fois لا إله إلا لا باسط ودود معطي سريع قهر 77 fois fatiha benn yoon astaghfirullah mille fois laa ilaha illallah baasitu waduudu muti sariu qaharu gore nañ ma baal seen ci bëgg ko ba amul ci moom sago cuun man a amul ko ci tolloon ah ku la xam jëkkër mais jaayowu ma de wallahi bàkkuma wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis yàlla nee na des fois nga toog nettali xew li ma la defal cuun xam naa sañ naa taxaw ni mbaa dàq nopp ci réew mi maanaam fi mu fi mu toll nii su ma déggee ku la ku la ku la déglu jëkkëram ndox ko fi mu toll nii lii ma wax ku ko def sa jëkkër nopp la te trois jours la waa ji bu la abandonné woon dana mujj ñëw topp sa ginnaaw ah sëriñ bu fekkee dañuy sëy ñoom ñaar ñëpp def ko problème doon ñu bëggante ba kenn du xaj seen diggante laa ilaha illa allah baasitu waduudu muti sariul xaxaaru 77 fois soo paree teg ci allahu mujibu dayaanu mille fois ni yàlla diw damaa bëgg mu bëgg ma ba duma yemaleeg dara ñaan xanaa bëggoo mu ndof la kese boo ko barilee juróom-ñaari fan nga am dof dama du la arrangé ah cuur mag ñi mag ñi daadul nen nen lañ daan téewee mag ñi daadul nen nen lañ daan téewee seen jabar yi mag ñi amuñu wër wërsëg ay baykat lañu ñu woon mm-hmm. mag ñi du joxe dépense mm-hmm. ñu ci ëpp te cuun seen jabar dañ la daan ragal di leen wet duñu fay duñu tas cuun yi wa yi bu leen jël bàyyi leen góor ñi def ko rek bu leen jël cuun mm-hmm. yi wa mm-hmm. li gën a garaaw mm-hmm. mooy cuun da ngay léegi jigéen kàkkaat cuun fa tabaarakallaahu da ngay jëndal jigéen kër mu abandon la fa wàcc la fa waaye cuun waaye sarixu ko waaye xaxaaru ko waaye waaye dayaanu ko lii boo ko defee insha allah rabbi dana topp ni xaj toppee borom tur nopp aw ma ci morom